nee na ñuy assumer kàddu yooyu ginnaaw bi nga xamante ne nag waa Modis def nanu évaluation Ousmane Sonko nag mi ngi raggu deru Sénégal di ko yëkkati bu nu sukkandikoo si Le Soleil yéenekaay moom ilimaani jëwriñ yi nee na développement Sénégal moom duñ ko wékk mukk ci financement international yi moom Ousmane Sonko nee na nag nan roy ci japonais yi ci wàllu financement public sunu naataangoo yu Walf Quotidien ñu ngi xamal ni waa DPEE e ñu ngi def seen kéem kattan ba corriger déficit bi ca jamono jooju nag présidence mel na ak yi nga xam xamante ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi tabb ndaw Pastef yi ñu bëri ci ñoom nag def na leen ay chargé de mission le quotidien yéen kaay ne li fi neewoon moom jógu fi ndaxte nomination yaa neex yi ba léegi jógu fi ndaw Pastef yu bëri neexal na leen ak ay poste chargé de mission l'observateur ñëwaat ak ñun ca santé publique ci diggante trafic ak surdosage ñoom nag ñi ngi alerté ci garab yu bon yi nga xamante ñoo ngi koy jaay jaarle ko ci xarale yu yi surnaal futur média bi dina xamal ni procomil di garab bu nga xamante nag mun naa indi feebaru xol lool ci wàllu sexe tamit te nag ñi koy jëfandikoo fii ci Sénégal ñu bëri nag ay couple lañu waaye nag agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique et la cybercriminalité ñoom nag taxaw na temm ngir xeex ak jaaykatu garab yu bon yooyu lee ca jamono jooj nag les échos yéen kaay dellu si waat ak ñun ci ndam lu yaa li nga xamante ne nag Sénégal am na ko démb te ba mu jàkkaarloog équipe bu Malawi bii ñeenti bit ci dara la ko duma Pape Thiaw nag effacé na bépp défaut bu nga xamante ne nag Aliou Cissé wàccoon na ci équipe bi moom sunu kër si bilee ndaw yi la jiital ginnaaw bi nga xamante nag indi na ay coppite yu mag ci équipe boobule Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané rek ñooy ñaari mag yi nga xamante ni nag ñoom la boole ci onze de yi bu Boulaye jaa démb defu match bu am solo ba noppi dugal but Nicolas Jackson moom ubbi na compteur am Sadio Mané moo nekkoon patron bi Pape Gueye moo gënoon a xarañ ci équipe bi ba noppi dugal but tamit bés bi la jour ne démb moom Pape Thiaw sa xiir la indi Pape occasion bi nga xamante ne nag joxoon nañ ko démb ci diggam ak Malawi yi moom ratewu ko ndaxte nag teg na leen seen place mayu leen dara duba leen duba yu jamono jooj nag Aliou Cissé mi nga xamante ne nag moom la Pape Thiaw wuutu ci baamu équipe nationale moom mi ngi waxtaan ak waa Mauritanie ngir yor seen équipe nationale boobulee éliminatoire CAN 2025 Sénégal Malawi démb nag sunu coach national départ bu baax a baax la def ndaxte du mën a waa Malawi ñeenti bit ci dara enquête yéene kaay ni nag démb sunu gaynde yi ñoo maîtriser match bi mën ko jàpp équipe yi duma leen duma yu metti ba noppi delloo leen seenub ànd Pape Thiaw moom nag mi ngi expliquer plan de bi nga xamante ne nag moom la teg démb ba duma waa Malawi remplaçant yi nga xamante nag indi na ko ca waxtu wa def ab jeu offensif bu am solo staff bi nag imposé nañ seen bopp tàggat yaram ba léegi ak Rewmi Sport Sénégal ak ndam lu yaay yi nga xamante nag am nañ ko dem seen diggante ak Malawi sunu gaynde yi nag sargal nan Pape Thiaw mi nga xamante nag mooy matcham bu njëkk démb en tant que entraîneur ci bopp équipe nationale bu Sénégal record yéenekaay nee na sunu gaynde yi nag wane nañ démb seen xar kanam dëgg ñàkkum confiance bi nga xamante nag moo nekkoon seen diggante ak askan wi dellusiwaat na Sénégal nag démb succès bu yaatu am